wasaliyaan alayhi abdal salaat waali wasabi sawi silaat wa kullu man qaddamani aw saara fa najjini waxfid lahu aw saara wa kullu man aabani aw maala illaa farsu xudan aw maala wa kullu man satamani aw laama fa ablahu tawbata wa istislaama فكل من أساس النوبيا فليقل قلبه يا رب يا فلتكفني أسى جميع العالمين ولتقضي مسا يا رب العالمين وجل بنائي بنا أوافيا يجرني إلى خيور سافيا jullit yi mbokki taalibe yi fu ngeen mën a nekk ci àdduna bi ñu ngi fii tey jii ci Fatxul Mannaan fii ci Touba muy bis bu mag daje ak ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru rajab 1442 ci hijir bi daje itam ak fukki fan ci weeru mars 2021 muy bis boo xam ni sëriñ Mamour Mbacke Mourtada ci liggéey bi muy liggéeyal waajuram Cheikh Mouhamadou Mourtada di ko liggéeyal sëriñ Touba di ko liggéeyal yonte bi di ko liggéeyal lislaam di ko liggéeyal mbooleem humanité bi yëpp yaatal xam-xam ak dàq lëndëmuk réer moo fas yéenewaat amal fii tegu xeer ci naal faculté yu mag barab bii nekk benn site d'extension ci université Cheikh Ahmadou Bamba depuis 2016 2006 bi mu tegee xeer wi fële ci ndaam daaril alimul xabir nga xam ne tey jii fara faculté bu mag bee nekk bi faculté de sciences religieuses humanités et civilisation kulliyatul ulumi diiniya wal insaaniya wal xadaraat ubbi yeneen centre universitaire ci réew mi yëpp tàmbale ko Dakar ak Bambey bi mu tudd Cheikh Mouhamadou Mourtada nekk ci Fass Mbao bi mu tudd Serigne saaliwu nekk ci Bambey di jàngale mbay agriculture ak élevage bi mu tudd sëriñ Serigne jaar a nekk ca Saint-Louis bu yàggu rek daje nañ fa di ko inauguré ba liggéey ba tàmbali na tey jii ñu daje fii ci barab bi mu def ko nag jotaay bu yemamaay rek cérémonie bu sobre boo xam ne lu ko waral xam ngeen ko contexte bi ñu toll ak Covid bi ndax xam ngeen boo wootee ci xam-xam ak liggéey bii mu soobu àdduna bépp nañ ko defoon ca tàmbali ba nëgën ni danañ ko wusi waaye ginnaaw tolluwaay bi fii la toll ca liggéey bi moom warut taxaw moo tax mu wootee nii ñu fas yéene koo jébbal kàddu yi muy cérémonie nag boo xam ni bu mu woyofal la waaye bu symbolique la ndax li muy wane rek mooy vision bu yaatu li muy wane itam mooy laxasaayu li ñu tuddee détermination ci liggéey bi moom du taxaw fa ko Cheikh Mouhamadul daa bàyyi woon xam ngeen ne lim ci dolli tey ji bari na lool ndax université bi mënoon nañu wax ni wala ñu bari jàppoon nañ ni ay rêve la waaye tey ji réalité la yoo xam ne génne na sax ñu ciy liggéey kon sëriñ bi kàddu yëpp moom lañ koy delloo su ko defee ñu déglu ko ci li nga xam ne moo waral jataay bi tey ak li nga xam ni moom la naal pour def ko fii. ñu ne woon nag daaw ci premier mai bi ci la teg xeeru barab bi far yàlla def xew-xew Covid bi ñëw. ñu fomm loolu waaye nag téewul ñu ngi woon ci yeneen liggéey ba ren nag ñu ne ginnaaw dañoo toll ci jamono boo xam ne weer wi weer wu am solo weer yi bokk na ci weer yu gën a am solo muy kasu rajab bi ñu ne kon nañ dàkk nga ne li tàmbuli fi nag ci li nga xam ne barab bi daf ko ëmb ni mu ko junjee léegi muy ay faculté ak rectorat bi nga xam ne fi lañ ko war a def fii nag banqaasu la rek ci daarul alimul xabir bi nga xam ne ni ngeen ko xamee yëpp mooy cosaanu lépp daara yëpp ndax foofu sëñ Touba moo ko santoon Cheikh Ahmadou Bamba jël ay njabootam yóbbu ko fa sëñ Mourtada itam dekkal ko jël Al Azhar def ko mu nekk foofa mu nekk centre bi nekk foofu ñun tamit ñu jël université bi foofa di di ndey ji fa lañ def it nag faculté bi nga xam ne moom lañ ko mooy lu jëm ci mbàllu diine mooy faculté sciences religieuses ak humanité ak civilisation waaye ñu gis ne nag yeneen faculté yu bari dafa am te barab ba mooy symbole bi nga xam ne mooy barab boobu ndox mooy barabu sëñ Touba fii nag ñu fàgg woon ko jamono yu yàgg ne woon dañoo bëgg bu ñu demee ba ca kanam ñu yaatal ko fi euh, def fi euh, ay loolu ma leen wax ni mu ko waxee tamit mooy bañoon a sonal kilifa yi ndax fi jamono xat-xat yi bañoon a sonal it autorités yi moo tax loolu lépp ñëw ñëpp ñu bàyyi leen xel ne leen jéggal nañ leen ko kon nag ñii fi teew nag bu ngeen ko xamee mooy mooy administration bi ñi nga xam ne ñoo service administratif bi ñu sekk li nga xam ne mooy liggéey bi ak suñ suñu rakk yi nga xam ne kenn ku nekk buñ ñëwul mën na fee teew kon loolu rek moo demee tax mu deme nii kon nag mbokk yi nga xam ne dégg nañ ko wala kilifa yëpp ñu xam ne loolu rek la rawatina nag sunu kilifa sëñ Mountakha li ñu ci wax nag mooy barab bi dafa ab continuité rek la maanaam dafa wéyal liggéey boo xam ne dañ koo dañ koo dañ koo tàmbali muy jàngale wax nañu li nga xam ne moo doon sababu sos université bi mooy njàng mu mag mi dafa jafe woon lool ci ci Al ndax ñëpp ñoo xam ne ay bachelier wala amoon nañ seen baccalauréat xam nga ne dañu daan dem ci dëkk yi naar yi te suñ fa demee tamit lañ fay jàng du weesu lu jëm ci diine wala loo xam ne Euh, lu jëm ci science wala lu jëm ci scientifique moom daawuñu ko ci boole ñu dox nag ba xalaat loolu nekk ci di ci liggéey bu ubbi nag université état bi tamit jàpp ci ndax université tamit dafa nekkul lu yomb rawatin nag bu fekkente ne da cee bëgg mu nekk loo xam ne dafa tege ci yoon ndax diplôme dafa nekk diplôme dafa nekk loo xam ne nekkul aw symbole kayit rek wante dafa nekk loo xam ne tamit fu ñu ko tàllal war na ñoo xam ne lii fii la jóge lu wér a ci nekk. loolu moo tax ñu sos université bi état bi nangu ko ñu tuddee ko université Cheikh Ahmadou Bamba booba ba léegi it ñu di ci liggéey ñu ko junja léegi am na ay faculté bu nekk dakaar ñu defa jëm ci lépp lu jëm ci technique bu dee Bambey agriculture la développement rural ak Darou Alim ak Saint Ndar fii nag danañ fi def yeneen euh, danañ leen gën a jox détails danañ fi am juróomi faculté ak rectorat ak ay dëkkukaay yi nga xam ne moom la ay professeur wala ay gan yooyu yëpp dañu ko fi def dem naa plan bi sunu architecte bi mi ngi fi moom itam ñu di leen sant ñoom ndaxte ñoo leen jële woon itali yàgg na boobu fii àll la woon ñu ne woon lii lañ fi naar boobu yi yëpp amagu fi woon ñu nekk di ci liggéey liggéey bi tamit li ñuy faral di wax rek na day liggéey yoo xam ne dafa xaw a dafa am dafa dafa xaw a dafa xaw a dafa dafa am sol dafa dafa dafa dafa xaw a sensible tuuti ndax ni nga ko bëggee ak fi jamono toll boo gisee sax ñu gis ay ñu ne dañoo gis ñu mel na ay nit ñu xonq di ci nekk du doyee dal suñu dëkk wante nag dafa bari ay liggéey yoo xam ne léeg nga jaar ci dema dem ba ci biir nga am ci jafe-jafe te ñii moom lu mu ci mën doon da ngeen koy teg ci yoon woo xam ne daanaka doo leen ci sax gisante mën ngeen ko bañ a gisante te saa boo ñëwee fekk nu defal la ko ni nga ko bëgg xëy na loo rek la euh, barab bi nag ñu ngi ko waxee rek barabu sëñ Touba la moom lañ ko jox moom lañ ko jox te sëñ Touba buñ nee barab buñ ko jox la kon barabu yàlla la ndax léppam da koo jox yàlla boo gisee toujours ñu naan ñuy wax ne suñu liggéey bi laaju ñu ci kenn dara day liggéey boo xam ne boo ko tegee ci ku toll ne loxo sëñ Tuubaa te sëñ Tuubaa léppam yàlla la dañoo xam ne kon yàlla dara am du sooxe mu gën a gàtt rek gën a noppal ñëpp loolu rek lañ ci jublu waaye luñ kenn walla ñu wax ci wala ñu waxee ko lenn loo xam ne dañ ciy jublu doyadil wala déedéet noonu rek lañ gisee ku ne nag am na gis-gis boo xam ne xëy na dina xóot xóot boo xam ne yow rek yaa ko mën a expliquer wala même boo ko expliquer sax duñ ko déggin day jafe waaye loolu daal moo ëmb mbir mi moo tax liñ fi def lépp liñ fi bëgg a def lépp loolu rek moo tax ñu def ko euh, kon nag ñu xam ne euh, jàng la te xam nañ ne sunu euh, doom yi fi nekk yi nekk ci université Ahmadou Bamba te nga xam ne gis nañ bu baax li nga xam ne moom lañ fi moom lañ jot am ci résultat ndax fukki at bat na ko ndax dañoo commencé woon ci ay centre d'excellence mu ñi nga xam ne dañoo am baccalauréat ñu am benn at def BT ak wala ñaari at def BTS état bi sax mayu ñu def ko ñetti at pour mu mën a am BTS boo xam dañu am année préparatoire loolu moo doonoon ndey ji bi ñu demee ba ci biir nag ñu soog kon ñu defal ñu ko université ndax conditions yi tamit xam ngeen université du xam ne état Sénégal rek ci la ajo waaye dafa am ay yeneen euh, mbootaay yoo xam ne lu mel ne ay CAMES ay ANAQ yooyu dafa am ay sart loolu lépp ñu nekk di ci liggéey amit ay relation ci yeneen bitti bi mooy yenn mbootaay université yu mag yi nga xam ne dañu nekkul ci biir réew mi lu mel ne ESISCO lu man ñett téeméeri université la ak ñaar fukk yoo xam ne ñun benn membre lañ ca lool mi ngi ñu ngi ko ñu ngi kii bi mi ngi nekk Rabat loolu lépp liñ ci jublu rek mooy fi njàngu arab tolloon nga xam ne daara rek la ñuy wax tax daara sax mooy lépp moom wante ci waxin sunu sunu sunu sunu sunu waxin waaye dafa demoon ba njàngu arab daanaka bu ñu koy defee bu ñu ko waxee dañuy def ne rek kolo te bi ñu gisee na xale yi nga xam ne ni mu ko junjee léegi bari na ci ñu am ñuy liggéey ñu doon def seen agriculture ñu doon def yeneen yeneen filières yi ñu ci bari ba génn nañ ba ñu ngi liggéey seen liggéey loolu nag muy loo xam ne eh, lu bees la loo xam ne jàpp nañ ne mën naa dimbali sunu xale yi ñu jëm sunu sunu doom yi nga xam ne ñoo war a nekk fii ëllëg loolu rek moo tax barab bi ñu defee ko noonu kon ñu ngi gërëm ñi fi ñëw ñëpp ñu xam ne loolu rek rek euh, moo ko tax a jóg te loolu tamit ci la ñuy fas yéene nekk ak ak liggéey bi daanaka daal lool rek lañ ci mënoon a wax lu am solo xëy na yenn détails yi nag danañ ko bàyyi ak ñi nga xam ne ñoo yor am sa bu fekkee bu leen ñu fi fekkee wala bu ngeen bu fekkente noppi nañ lu ngeen ci bëgga laaj ci loo xam ne da ngeen ko soxla ñi nga xam ne ñoo seq liggéey bi ñu ngi fi. dañu leen ko mën a leeral waaye ñun daal li ñu indi woon mooy jëmmal bés bi tey muy tas tombeek bés bu am ngëneel bu bare ci ci diine eh, loolu moo taxoon ñu ñu ñu ne nañ ko def tey ñu ngi leen di sant nag yéen ñëpp surtout yéen ñi eh, nga xam ne yéen a yor eh, média bi presse bi parce que tamit li ñuy wax rek fii dana am faculté communication dana fi am ñun nag suñu faculté communication dana dana dafa am danañ mooy daanaka damay wax ne ñun sunu éthique ak déontologie ñoo koy carrière seen bopp wala bokk ñoo ci def suñu commentaire wala suñu yokkute wala suñu jëm-jëm ndax lépp lu jëm ci loolu tamit diine def ci am solo parce que diine dafa amal solo communication amul benn koo xam ne yonent lañ yónni koo xam ne du dafa muuma wala làmmiñam sax rafetul amul élégance wax dégg ngeen ko yonent yëpp yonent ngi xam Moussa ab yonent la woon bi mu amee problème wax sax dafa ñaan yàlla mu indil ko aaroonu mbokkam pour mu mën ko waxal kon communication dafa am solo loolu moo tax fii danañ fi dana bokk ci faculté yi fi nekk dafa tam yoo xam ne communication lay doon ci sunu nag euh, communication communication la moo tax toujours damay wax ne bu ngeen gisee lu bare bare bare ñu bari xamuñu ko sax ci liggéey bi euh, man maa ne bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu publicité mais nañuy informer parce que euh, publicité léeg-léeg mu niru commerce informé nag da ngay wax nit ki mu ñëw xoolal boppam moo tax bari na lu ñu gis lu bari lu ñu def loo xam ne nit ñi dañuy def na lu tax waxuñu ko lu tax waxuñu ko mais man man ñun ñoo ne nañu préféré informer au lieu de publicité bu ko defee ndax li ñuy def it loolu rek la liñ ciy defe kus néewit nag du du alal joo xam ne amul problème amul ñu am naar ne waxoon naa ko sëñ ñu ab tubaab du ñu def blanchiment du ñu def fraude loolu lépp baax na nag parce que xaw na xóot sax wante dafa ci baax ndax léeg-léeg nit defe nañ fii dañoo yor ay milliards yu jox léeg-léeg sax ñu ne voilà loolu mais nag loolu la du ñu def blanchiment du ñu blanchiment du ñu jaay fraude du ñu jaay leen du ñu jël cib naar du ñu jël cib tubaab liggéey daal la ñuy def sono lu ñu yit nag kenn li ma ci waxit explication yomb naa leeral parce que sëñ Touba la ñu ko jox sëñ Touba léppam yàlla la yàlla nag ku ne xam ne daraam du sooxe loolu képp nag moo tax ñu jàpp ne liggéey bi foofu rek yoon boobu rek la tegee kon nag ñu ngi ñaanal yéen ngeen gën a góorgóorlu yéen xale yi nga xam ne yéen a ngi nekk ci média yi soobu yàlla euh, xëy na yàlla na nu ko yàlla ma ñu fekke ko wante képp ku ci bëgg a defar sa formation ak sunu côté waaye nag il faut nga jàng diine tuuti waaw kooku tamit daf ci bokk ndax lépp lu ñuy jox ak lu mu ci mën di doon diine yi daf koy lal te xëy na ñu bari dañuy ragal waaye diine moo mën a régler problème lu ne communication lépp ay éthique déontologie lépp ci diine ñoo ko gën a euh, ñoo ko gën a ñoo ko gën a ñoo ko gën a ñoo ko gën a taxawal taxawal boo xam ne loolu yi tamit yéen ndaw yi nga xam ne yéen a ci toll ñu ngi leen di gërëm bu baax di gërëm yi nga xam ne mooy kër yi yore yooyu yëpp. yaa rabbana yaa rabbana yaa rabbana yaa rabbana yaa rabbana aqbal nasmana bi hurmatil hasani wal husayni ma hurmati kulli man ila sabin jamaam wa hurmatil banina wal banati wa hurmatil ali ma'a zawjatin wa hurmatir rusuli wal anbiya'i wal hulama'i ma'al awliya'i wa hurmatil malaa'ikil kiram وحرمة الكعبة بيتك الحرام وحرمة البيت المقدس الذي وبمدينة الرسول كالكريم وبيتك المامور يا رب وما يسره من مالك فوز سما وجاي كل سعدا من سالك أو مرشد أو عابد أو ناسي وجاي كل من إليك ينسب هب لي ما منك جميعا نطلب والتكفني جلة ما أوصو من سرينا بك يا معيز فالكلمان بيني هنا وبينما يسوقني إليك حيث لما وكلما أنك يوخ يا بدي فلتفرق بيني وبينه السرين أنا الذي أسلمت وجهي هنا ilayka aasim xulaa nosinaam maay Yankoba Badiane bokk ci kenn ci ñuy liggéey ci université bi euh, jima rek euh, yaxal ci wolof li nga xam ne moom la mbokk mi wax moom nag moom mooy architecte bi nga xam ne moo yore liggéey bi mu jóge ba Italie ñu ko sëriñ bi présenté léegi Jean-Luc euh, muy projet bu am solo comme ni mu ko waxee di espace boo xam ni mat na hectare hectares li ñu njëkk a commencé nag mooy rectorat bi ci boppam mooy rectorat université bi waaye xam ngeen ni mooy liggéey bi njëkk a tàmbali ginnaaw bi ñu defee mbir yi ba pare wax na ne nag li nga xamante ni moom mooy amphi yi muy barab yi ñuy jànge ak euh, fi nga xam ne mooy dëkkuwaay yi dëkkuwaayu professeur yi ak dëkkuwaayu étudiants yi yëpp ci la ñuy jubluwaat muy liggéey boo xam ne ni dañ koy def étape par étape waaye lépp benn liggéey bi la. li ci ëpp solo mu wax ko mooy dana fi am lu war a tolloog soixante-dix appartements yoo xamante ni pièces yoo xam ni fi la ñuy euh, professeurs yi ak chercheurs yi ci la ñuy dëkk. ginnaaw bi itam dana fi am lu war a tolloog 300 logements pour étudiants yi étudiant bu nekk da nga ci mën a am sa chambre maanaam 300 chambres daal yoo xamante ni xaj na étudiants yi mën nañ ko bokk mën naa nekk itam benn chambre pour benn étudiant yooyu yëpp ça dépend ci nombre bi nga xam ne ñoo fi war a nekk am na fi itam euh, amphi amphi amphithéâtre boo xam ni moom bokk na ci yi ñu war a yi ñu war a yi ñu war a def fii amphithéâtre bu war a jël ci deux mille trois cent étudiants trois cent trois cent places am na fi muy boo xam naa boobu mooy amphi bi ci gën a mag yeneen di ci des yëpp ay amphi trois cent places am na fi deux cent places euh, ci ci ci projet bi. mu nekk itam projet boo xam ni mu ko waxee dafay garder particularité bi ndax dafa nekk benn université islamique moo tax dana am mosquée ci biir waaye lépp loo xam ni itam université moderne am na ko ci wàllu ay jumtuwaayu recherche ak renseignement lépp programme wàll nañ ko ci université bi bàyyi wàll nañ xel itam climat wu barab bi ndax Touba dafay dëkk bu xaw a tàng tuuti moo tax bàyyi nañ xel climat bi ba lépp lu mu laaj ci climatisation ak informatisation ñu informatiser barab bi ba lépp lu ñu soxla ci wàllu jumtuwaayu xarala yi lépp lu war a jaar ci internet lépp daan ko bàyyi wàll xel ci ci liggéey bi. bi ñu ko laajee nag ni ko kañ la liggéey bi war a tàmbali def liggéey bi tàmbali na daanaka ndax bu ngeen gisee nii euh, muy de clôture bi moom daanaka yemb na. sëriñ bi teg na xeer wi tey liggéey bi dafay daal di door étape par étape na comme ni mu ko waxee euh, durée liggéey bi itam nee na bu fekkente ni lépp rek jaar na ni ñu ko programmé dana war a toll ak at wala at ak lu ak lu néew pour mu pour mu yegg.